di ñëwaat tey pour am ak euh, yéen benn waxtaan bu ndaw rek muy si actualité bi nga xam ne nii moo ngi juddu fii nii te mi ngi gën a jël euh, doole daal muy wàllu li naan góor jigéen nii daal parce que Sénégal temps yi vraiment ak rapport am na si génn Freedom House façon rapport bu nekk nii génn dànkaafu Sénégal si lan moo tax euh, rapport yi Euh, lan lan lan moo tax Sénégal maanaam mun la taxaw si euh, droit de l'homme yi nga xam ne nii moom la ñuy exiger moom la ratifié depuis 1960 ba léegi nii ba pare di ko mise à jour ba lan moo tax mënu koo respecté jusqu'à présent waaw léegi sénégalais yi nag dañoo jël lépp féetale ñi nga xam ne nii mooy ONG yi nga xam ne nii ñooy représenté. affaire de droit de l'homme fii nii si biir Sénégal mu ay Seydi Gassama muy yeneen ONG yi mais bëgg xamal ne fi nekk nii euh, sénégalais yi si boppam ñoo war a am fulla yi jàkkaarloog seen i wax ak ñoom parce que affaire bi du affaire de ONG ONG yi ils ne sont là que pour faire respecter le droit Sénégal ñoom ñoo dem depuis démb maa ngi seetaan jàkkaarloo maître Abdoulaye euh, Tall je crois mi wax depuis 1960 la ñu ratifié convention des droits de l'homme de 1948 te dañ ko ratifié cent réserve sans réserve amul benn réserve mooy maanaam li nga xam ne nii moom ñoom loolu nuñu wàllum góor jigéen ak gay ak homosexuel ak trans maanaam lépp duñ ko ratifié à cent pour cent amul benn réserve buñ ci buñ ci buñ buñ ci émettre waa léegi kon léegi tey nga ñëw bëgg a jël xeex bi yëpp sippi ko li nga xam ne ni ñooy ONG mais du ONG yi ONG yi dañ ils sont pour li nga xam ne ni Sénégal def na ko si ay texam ñoom ñu fexe Sénégal respecté ko wala bu ko bañee respecté na dem fi nga xam ne nii tey jii nii mi fay dem di dóor martu ñu koy jox ay affaire ay financement muy ñëw di lekk xaalisu jàmbur te respecté wul affaire mu dem foofu bañeti jël xaalisam ba pare émettre réserve yi foofu mais la chose est claire fi mu nii mënatuñoo toog naan góor jigéen nii góor jigéen nee non du question de góor jigéen yi fi nekk question de dirigeant la ñun suñu dirigeant yi si boppam ñoo amul fulay signé li ñu war a signé fi nekk nii lenn moo des ci affaire de góor jigéen yi à part ñu am ay textes yoo xam ne dañ koy criminaliser mu leer temps yee passé gars yi ñu ngi si def benn euh, pétition pour tàbbal ko si assemblée bi pour gars yi mën koo voter pour ñu mën fee xaraamal góor jigéen fii mais du affaire yamul foofu rek état du Sénégal si boppam peuple bi ñoo war a exiger que à ce sàll Macky si boppam bind ay réserve yoo xam ne nii lu jëm si wàllum góor jigéen la dem déposer que si ñi nga xam ne mooy euh, euh, con euh, nu mu tudd sax ñi nga xam ne ñoo gérer Nations Unies ñi nga xam ne ñoo gérer affaire de droit de l'homme loolu la ñu war a def mais nekk waruñu nekk fii nii di ci werante toog fii plateau télé yi naan góor jigéen nii yéen Seydi Gassama nii yéen non du affaire du foofu du foofu te ne Sénégal li nekk si texte yi dañ ko war a appliquer léegi bu fekkee ne dañ dañ dañ bëgg euh, def ko suñu texte ba pare di ko appliquer loolu moo tax ñooñu di leen dànkaafu parce que ñooñu ils ne sont là que pour faire respecter le droit Sénégal ñoo leen jox yenn droit yi donte fii nii. li jëm si wàllum góor jigéen sax bu la neexee mën ngaa dox si mbedd mi taxaw na góor jigéen laa yoon terewu ko yoon li mu tere mooy lan acte contre nature acte contre nature mooy ñu fekk la ngay def loo xam ne nii tey jii nii mooy lépp loo xam ne nii tey jii nii seexlu nañ ko si diggante jigéen ak jigéen góor góor affaire yooyu noonu mais si loolu noonu Macky Sall si boppam moo war dem fi fi nga xam ne nii mooy affaire de droit de l'homme yi. yi nga xam dañ ko dañ convention yi nga xam ne dañ ko ratifié woon ah ñu demee ñu émettre fa ay réserve comme ni ko ay Arabie Saoudite defee parce que ñun mënuñu ko tey Arabie Saoudite jël nañ seen responsabilité. mooy dañoo émettre ay réserve ne ñun moom droit de l'homme d'accord nañ ci mais affaire de góor jigéen ak yooyu noonu duñ ko mus a nangu mais kenn du bind rapport naan leen respecté woo leen lii mais Sénégal chaque année heure bu génne rapport jotee ñu commencé waat coow ay góor jigéen mais loolu ñëpp xam nañ ne peuple bi buñ déggee saa ñuy wax ay góor jigéen dañuy reetaan ndax sénégalais xamul loolu te kenn mënul dugal si bopp sénégalais ne góor jigéen war naa mën a dund ak moom si biir kër sans problème doonte am na ñoo xam ne nag moom danoo peuple bi ñëpp xam nañ genre peuple ban lañ am am na peuple boo xam ne nii dañoo actif am na peuple boo xam ne dañoo passif waaw am na ñoo xam ne tey jii nii dañuy gis ne kii carrément mi ngi si loo xam ne nag su noonu la bu rombee ñu naan kaan bàyyi gannaaw jox ñu caayin waaye gannaaw yëkkati 1000 francs wala 10 000 francs jox nañ jënd caayin te ñëpp xam nañ kooku lan lay def si suuf donte mosoo koo fekk mu li parce que tamit ñaari nit yu tëju si nekk tamit yomb ñoo jàpp mais li garaaw mooy ah nga koy wane nëbboo ko ba pare Sénégal bàyyi la ngaw ngay def lu neex gis nañ fi ay musiciens yoo xam ne dañuy dooleel góor jigéen fii si Sénégal gis nañ fi ay série yoo xam ne nii tey jii nii dañuy dooleel ay góor jigéen gis nañ fi lu bëree bëri loo xam ne nii tey jii nii senegal nguur gi dañ ko waroon a dànkaafu mais duñ ko dànkaafu ndax lan ñu ngi leen di jàppale seen programme seen programme mooy lan fexe ba liñ naan wàllum góor jigéen am fii si biir réew mi te loolu nag <laughs> ku koy jéem tamit dangaa xamul rek mais sénégalais yi mënuñoo d'accord ak loolu de sénégalais yi mënuñoo d'accord ak loolu waaw sénégalais yi ko parce góor jigéen boo waxee sax gars yi dañuy ree boo nee kii góor jigéen la sax gars yi gars yi dañuy xaaxataay tellement que affaire bi da leen a jaaxal waaw léegi nga gis démb benn gaayen toog jàkkaarloo benn paa buñ naan Habib Niang mu ne Macky Sall moom bañul góor jigéen quoi sénégalais bañul góor jigéen mais affaire bi def coow quoi même Bouba Ndour moom maa maa ngi koy déggee quoi parce que Bouba au moins moom li mu war a posé da ngay posé parce que c' est un gars qui est véridique moom day wax li xam ne ni moo nekk ci moom te du fi nekk di laam-laamee ay layam-layam yi déedéet wax li nga xam ne moo nekk ci moom léegi Bouba nekk déedéet yow waxal ne yow bañoo góor jigéen mais bu ne Sénégalais yi bañ ñu góor jigéen waaw mais li mu wax nekk garaaw yow toog en tant que président de góor jigéen waaye nag day féddali li nga xam ne ni moom moo ko waxoon rek moom nee na moom ak guvernement am amuñu problème ak góor jigéen yi mais peuple sénégalais bi ñoom ñoo xoon mënagul nangu daal kon maanaam pareeguñu waaw léegi nag comme ñu ngi si agenda boobu noonu peuple bi ñoo war a jóg exiger ko ne ko hey lii dañ bëgg mu leer fële droit de l'homme bëggatuñ ñu fi indi rapport naan ñun ay affaire de droit de l'homme respecté woo leen ka góor jigéen yeeg yooyu bu fekkee nag état de droit ak yooyu noonu démocratie la ñuy wax si yeneen fànn yi d'accord loolu mën nañoo nangu ay rapport mais li jëm si wàllum ay affaire de góor jigéen moom bu mu duggati fii nii loolu peuple bi ñoo ko war a respecté loo ñi nga xam ne ñoo leen jiite parce que dañ leen a jox suñu kàddu jox leen suñu lépp suñu alal suñu lépp leen jox léegi nag ñoom li tax tey jii nii mënuñoo taxaw jël position ferm si affaire de góor jigéen duñ ko fi dugal nekk fii di layam layam yi li waral loolu yëpp mooy xaalis bi nga xam ne nii moom la ñuy jot si affaire de ay ay subvention ay ay ay ay ay nu mu nu mu sax ay ay ay ay ay financement financement yooyu ñuy jot si association yooyu noonu si lobby yooyu moo war a dakk waaw pour mu dakk nag foog ñoom ñu jël tey jii li nga xam ne nii mooy li nga xam ne moom lañ am si biir réew mooy suñuy ressource am ko si suñuy euh, impôt si comme ak fu mu mënti jóge si biir réew mi ñu fexe nuñ ko respecté fullaal ko fayeeku niñ ko fay war a fayee koo su koy fee dootuñu soxla financement bu jóge si ay lobby lobby góor jigéen ñun wu soxlawuñu xaalis mais vraiment xaalis boobu buñ ko jëlee du ko dugal si dëkk sax yàlla bu mu dugg suñ su lu ñun lu ñu war a dundee yàlla bu mu nekk subvention bu jëm si dund bu ñëwee nañ ko yemale si ñoom seeni bopp quoi mais vraiment sénégalais yi seen gémmiñ yi nii bugguñu see dugal si lu jëm su xaalis boo xam ne nii tey jii nii suñu borom da ko xaraamal nañu si dimbali quoi nañ fexe jéem a respecté nit ñi nit ñi mënuñu toog di lijjanti ay affaire de góor jigéen naan ay mën am nañ droit dox ak am amuñu fi benn droit amuñu fi benn droit parce que nit mënu ñoo mënu la loolu te loolu risque la sax ah nit jël ko di ko forcer nit ñi daal waaw loolu amuñu si bu fekkee yoon da koo daganal mën nañoo dox mën mën nañoo def leen neex tamit ah nañ xool nuñ koy defee parce que sénégalais yi mënuñu accepter loolu de te am na booy yoo xam ne dañ ciy sadik carrément moom moom pour ñu duma la bëgg a dee def la lu metti maanaam ñoom amuñu luñ ci sikki sàkk ak xel ñaar kon nañ fexe nguur gi li nga xam ne nii war na ko def si wàllu woowu mu dem ci ba jeex assemblée nationale bi fi nekk tamit ni ci góor góorgóorlu man assemblée nationale boo xam duñ discuter si wàllum deux puces jamais ah si wàllum deux puces jamais duñ ci discuter li ñuy discuter chaque jour mooy projet de loi buy arranger président mais xooluñu lu arranger peuple bi mais peuple Sénégal bi yëpp seen i référence mooy suñu kër diine muy catholique muy musulman mais ñooñu ban référence nga fay fan nga fay dem ñu naan la loolu ñun amuñu problème am moom mais vraiment nañ ñu dimbali assemblée nationale bu fekkee peuple Sénégal moom la fi nekkal na wax si loolu. criminaliser góor jigéen dañ ko war a def fii waaw criminaliser góor jigéen daf fi war a am waaw lan lañ ciy ragal bu fekkee dañoo am ay nawle yoo xam ne nii ñoom ay deux plus lañ mais nañ ko leeral. après ñooñu nañ ut visa dem yeneen dëkk yu ñu mën a defee seen liggéey yooyu defee ko mais fii si Sénégal moom du fi yombee de. du fi yombee parce que gars yi parewuñu pour jàkkaarloog ay góor jigéen ngay cappi cappi naan góor jigéen la waaw loolu moom nañ ci góorgóorlu bu baax te gars yi nañ bàyyi jël xaalisu góor jigéen yi jël di ko dugal suñu dëkk. parce que loolu da di yablu da leen di yablu chaque année ñu ñëw si yéen na leen ne lan moo tax respecté woo leen ah règle yi lan moo tax chaque jour ah, état de droit ak ay xam nga droit de l'homme mais dafa war a jeex. li laay war a suul nañ ñu lijjanti waaw gannaaw ba ñu waxee si góor jigéen nag bu ñu fàttee financement yi koppar yi nga xam ni dafa war a dugg si jeunesse bi quatre cent cinquante milliards yi waaw li laay war a nañ fexe euh, yombal ko jeunesse bi ñu jot si képp ku ci soxla jot si waaw ba mën a gën a daan dooleem daal waaw vraiment financement yi moom duñ ko fàtte daal ñu ngi tuub nag ci kàddu yi bu fekkee daa am lu si ñeges waaye dañ doon wa euh, waslu àq rek waaw wasalaam xam naa gars yi maa ngi leen di bëggee di leen bu baax di wax ne bu leen fa partagé bu leen fàttee partagé vidéo yi parce que bu ñu señoon tey jii nii lépp loo xam ne ñu ngi koy jooytu suñu moroom di ko jooytu ñu am sañ-sañ taxaw maanaam wax suñu kàddu pour fépp foo xam ne nii mën nañ faa yeggee ñu am si lu positif ñu ñu am ko si waaw mooy ñaan gars yi ñuy partagé vidéo yi tey di ko aimé daal waaw ñu ngi bëggee ñëpp di share ñëpp waaw di kontaane